Thank <laughs> you. toujours dans votre actif du jour de ce mardi 19 mars 2024 sur la chaîne des grands événements suñ jógee que la dem vent d'apaisement bi nga xamante ni indi loi d'amnistie bi ñu voté ci assemblée nationale ba permettre à kii di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye daal di génn foofu ca kaso ba dañuy jàppaat ñi nga ni commandos yi ñu de la force spéciale Nous avons libéré nañ leen commandos de commandos force spéciale yi nga xamante ni leen en même temps que ñii di Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye daal di nañ leen libéré bénéficié qui ci favoru lii di amnistie bi kii di Pape Mamadou Seck ak ñeneen nga xamante fukki ko accusé yi nga xamante ni ñoom la dénommé commando ak force spéciale yi nga xamante ni mën nañu japp ni que dal recouvrer nañu li nga xamanteni moy la liberté démb ci lëndi bi ginnaw bi nga xamanteni affaire bi nga xamanteni mo moo won beaucoup d'encre jaarle ko ci lamine yi ginnaw bi ñu doonee fukki individu ak ben ñu supposé won appartenir que li nga xamanteni moy état bi nga xamanteni mo leen doon wowe force spéciale ci ginnaaw loolu nag lañ leen arrêté woon maanaam le 29 juin 2022 ba noppi daal leen envoyé ci li nga xamante ne mooy maison d'arrêt de Rebeuss ci biir loolu nag ñi ngi xamal ni que daal ñoom daal recouvré nañu la liberté ginnaaw bi nga xamante ni voté nañu lii di loi d'amnistie bi di leen fàttiku ko ñoom ci seen bopp dañ leen accusé woon de complot contre l'autorité de l'État acte de nature à occasionner des troubles graves association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste détention de transport et de produits substances incendiaires en vue de la commission d'actes en rapport rapport en rapport avec une entreprise terroriste ci biir loolu dal li nga xamanteni ni mën nañ ko xam moy justifié wu que li nga xamanteni tay mom lañu accuser won ba nopi dal di détenir ay bombes nucléaires ba nopi dal di bëgg larguer li nga xamanteni moy Sénégal jëmele ko ci benn arrêté bo xamanteni ni mën nañ ko marché jaarale ko ci marché bi nga xamanteni ni interdiroon nañ ko li di coalition yewi Askan bi muy le 17 juin ginnaw bi ñu fekkee ci ñom li nga xamanteni ay policiers ñoo fekk ñom benn quantité bu am solo bo xamanteni ay produits la yo xamanteni c'était pour defar li di ay cocktail molotov ci biir loolu daal si marché boobu nga xamante ne ñu ngi doon processé contre li nga xamante ne mooy rejet liste candidat yi nga xamante ni ñoo waroon bokk ci législative yi maanaam du 31 juillet plus de cent personnes yoo xamante ne tey dañ leen arrêté woon ci biir loolu nag gis nañu ñii nga xamante ne présenté woon nañ leen comme ñii nga xamante ne mooy leaderu groupe boobu di inspecteur des impôts et domaines jaarale ko ci kii nga xamante ne mooy Pape Mamadou Seck ak kii nga xamante ne mooy responsable Pastef bi nga xamante ne moo évadé woon foofa ci pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec ba nopi ñu dal di ko fekk fële après ci Touba ñom dal ak yeneen nitam yi nga xamanteni dal ñom lañu lañ won force spéciale ba mettre en cause que ki nga xamanteni moy mooy interpellé bi jaarale ko ci ay jours yo xamanteni après bi ko fekké foofa ci Daaru Karim nekkoon foofa ci département bu Mbacké fu mu xamanteni ni foofu la sëriñam nekkoon ñoom dal daal dinañuy bénéficier ci li nga xamanteni moy loi d'amnistie bi daal dinañ leen libéré genn nañ dem seen kër ginnaw bi nga xamanteni accusation yi nga xamanteni yépp tégon nañ ko ci seen en tout cas muy li nga xamanteni dal doyna war ginnaw bi nga xamanteni euh marche coalition Yewwi Askan bi waroon am le 17 juin ñi fekkon ci ñom lepp lo xamanteni manam ay quantité la yu important pour defar li nga xamanteni moy ay cocktail Molotov ñom dal dal dinañ le libéré dembu ci altiné bi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars atum 2024 ginnaw bi nga xamanteni Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñoo njëkk genn ci prison bi. Bye.